dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen raw. ah waaw salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp te di leen jaal ci luñu bokk ndax papitoo ku wéet ku ne mën nga koo jaale sa bopp ndax liggéey na fi te ji nañu loo xam ne vraiment papito wu ñëpp la mujj doon. ñu xamante woon rek ci contexte biñ ko jàppee ndax man laataa ñu ko doon jàpp xawma ma ko woon ca bañ ko jàppee laa ko xam ci cadre kuréel googu tudd Kolideb daanaka ci lañ doon mëne ay activité dem ba saafonteeg ñamu bokkal kër ba xamanteeg ñoom ku ci mel ni Matar Daouda ak ñeneen ñëpp ca des ba ci Soxna Jaara ndax déplacé wu woon nañu dem seen kër bokk ay manifestation bokk ay ay conférence de presse yoo xam ne dañu doon en tout cas exiger libération muy moom muy Ousmane ca ba mu génnee nag wax dëgg yàlla man moo yëkkatil boppam téléphone am woo ma man moo ma woo téléphone aw ma woon numéro parce que naturellement ñun saa ñu xeexalee nit ba mu génn man la plupart du temps sax après ca laay pare ci ay mbiram nekkaat ca ñeneen ña des kaso waaye man mu def lu ma marqué nag moom mooy premier détenu boo xam ne téye nañ ko ba libéré ko mu woo ma téléphone ne ma man la Papito Kara dama la doon jaajëfal gis naa ni yaay faal nga ma nit bàyyi faal ba vocal bu ñuy mujj déggante ndeysaan yaa ngi dégg mu naan yaay faal bi yow bëggal rek ndax dafa am lu ma ko doon sant yaay faal gi yow bëggal rek man it fal faal gi laa ko doon woowe donc mu doonoon ku sori lool ci ñun ku ñu fonkoon lool te lu ni mel suñ ko yëgoon du doon demee nii waaye ndeysaan ku matale rek matale nga te su duloon ci fànn yi tamit bësam moo jotoon kon euh, di ko jaale képp kuy sénégalais ndax papito papito wu ñëpp la waaye li ko dem loo tey dëgg la décision personnelle la ndax comme ni ko Matar waxee suñu tàgg woon du dem ndax ku gore la te ci ngor itam la demee ndax su ko neexoon ne métti na waaye su ma tàllalee sama loxo ñii wala su ma demee ci nguur gi soxla nañ ma ndax sama communication porté na kon dinaa doon am li ma bëgg waaye amoon lu mu jomb moo tax kenn xamalu ko li mu doon dund amoon lu mu jomb moo tax mi ngi doon dimbale nit ñi ndax ba ba muy làq tout le temps mi ngi doon jaabante rëbës di leen yóbbul ay mbir di leen yóbbul cere bokk na ci ñoo xam ne ñoom ñoo njëkk yóbbu cere ci prison yi ndax da ko doon lijjantee fii Touba ñu ko koy mooñal di ko ko weeral ba mu wow mu yóbbu ko ci prison yi xam nga ni kooku liggéey na Sénégal loo xam ne néew na ci ndaw euh, ñoo xam ne liggéeyal nañ ko seen réew ndax dafa duggoon prison amaana pour xami condition ya fa nekk wëlbatikuwaat di doxal tey su doonoon am am dong wala mu bëgg nekk à l'aise yomboon na ko waaye nag mënuñoo wax lu ni melte te indexé wuñu responsabilité état bi ndax ñi fi gàddaay yépp di génn réew mi c'est parce que seen réew doyatu leen c'est parce que amaam gi demeetu fa noonu c'est parce que la leen fi dese woon muy seen liberté d'expression dañ leen cee tënk ndax tey soo leen seetloo bëri la na ay bëri na ay politique li leen tax a daw mooy nekkatuñu en sécurité ci seen réew Papito nekkatuloon en sécurité ci réewam te loolu sañ naa koo seede ndéem man xam naa ni nekkatuma en sécurité ci sama réew ak sama laak moom mi nga xam ne baatam àggoon na fu sama baat ag àggut nekkatuloon en sécurité métti woon na lool ci moom buntu gumu mu fëggoon itam da koy jafe ndax dañu naan kat kii dafa contre nguur gi te su ma ko indee ci sama maison de presse dinañ ma gën a sonal ndax moom kon mi ngi doon dund lu métti waaye gore na ci ba kenn xamalu ko ko ca ba mu dëddoo lañ ko ko xamal kon di ko jaale képp kuy senegale te di ko ñaanal bay Faal la yal na ko Cheikhul Khadim rambu yal na dajeeg Cheikhul Khadim li mu bëgg moo ko xam yal na ko njabootam woyale ci ginnaawam yal nañu borom bi may xolu attan xolu nangu ba ñu nangu nattu gi ñu ñu teg ndax métti na lool wallaahi métit gi fooko ko natt fu ne weesu na ko di ko jaale surtout le président Ousmane sonk ci ginnaawam gi ñam ca ñàkk bëri na te métti na lool ca fa mu nekk xam naa ni fa mu nekk kat métti na ko lool di ko ko jaale di ko jaale képp koo xam ne yaa ngi bokk ci société civile bi di ko jaale Colideb ndax ndeysaan ci activité yoo xam ne bokk bokkoon nañ ko bokk na ci bi ñuy séddale ndogu bi ci VDN bi maa ngi ko naan xam naa gëj nga ndogoo <laughs> mburu ak chocolat waaye tey moom ngay ndogoo ma nga ca woon mi ngi woon ci photo yi ñoo ndogandoo woon bés boobu kon di ko jaale képp koo xam ne yàgg nga exiger sa libération di ko jaale waa këram di ko jaale soxna jaara bu baax a baax mhm. dañ leen koy exiger comme ni ma ko waxee ndax man nekkuma ci logique ñaan état waaye war na xam ne ndaw yi fi nekk sonn nañu maa ngi koy wax démb dongu ne état bi su bëggoon lu ni mel dakk dina dakk waaye lu waral seetaan gi moo ñu jaaxal ndax nag ñii dem nañu waxante dëgg amul kenn koo xam ne yaa ngi lekk ba suur naan ba màndi say liggéey nga koy matale ni mu waree nga nangoo jël risque jël gaal gi ñii dem ñëpp mooy ñi nga xam ne ils sont désespérés te ñi désespérés ñëpp xam nañ fi ñu bokk ci dëgg lañu fare kon ñooñu bokkuñu sax ci électorat wu nguur gi waaye dama jàpp ni dañoo jàpp ni su ñuy demee ñii ñu tëj leen kaso amaana électorat googu dina wàññeeku waaye man am naa yaqiinu ni li ñu war ñun en tant que sénégalais moo ñu toog ñàkkante kook ñoom ci réew mii ndax nag Macky Sall ëppale ci réew mi ñun suñuy juróom maam fii la ñu juddoo ñi bokk ci nguur gi ëppale wuñu ci réew mi ndax lu kenn mën lu ne ñaar moo la ko dàq te ñun le peuple on est souverain yàgg yàgg ñun ñooy fari dëgg te dëgg ci ñun lay mujjee kon buñ leen ko yombalal ñoom nañu des ci réew mi nañ ko jaayanteek ñoom ndax li ñu bëgg dinañ ko am ndax ci dëgg la ñuy dox te dëgg rek la ñuy ñaan kon nañu toog ñàkkante ñoom ndéem ñun soxna yi ñun ñooy toog ñàkkante ñoom asamala ak góor yàlla yi loolu dama ci soñu képp kuy sénégalais dëgg la nag ñu ngi wax lu ni mel metti na waaye soo xëyaatoon suba suba gis ku jël gaal gi dem métti na ndax dëgg la nag li ñuy dund dafa métti nooteel la nga dem ba li la naqari ci réew mi mën mënatoo koo wax nga dem ba yow li ne sa xol nga bëgg koo génne ñu ne la doo ko fi génne soo ko defee ñu jàpp la tëj te nag tëj mooy li gën a yomb li gën a sedd ci li la mën a dal waaye nag ndéem yàlla muñkati la àndal ndéem dëgg yàgg-yàgg mooy mujj nañ fi toog na serait-ce que pour Papito Kara man dama ne su ma naroon dem duma dem damay toog ngir moom ndax xam naa li mu bëggaloon réew mi te su ma demee amaana li mu bëggaloon réew mi du sotti kon ne serait-ce que pour moom ne serait-ce que pour waay dawlu yi nga xam ne gëmoon nañu projet bi te ñu ngi ci doon xeex ñun ñëpp nañu booloo toog ñu ñàkkante ko ba ñu mën a am loolu noonu nga xam ne ñoom yàggoon nañ koo bëgg ci réew mi di ko soñu képp kuy jeune di ko soñu képp koo xam ne dem gi métti na la nañ fi toog ngir ñoom ngir mën koo ñàkkante ak ñi fi nekk te nga xam ne daanaka ñu ngi ñuy noot te buumu jaam gi ba léegi dakkagul jeexal rek état bi mhm. mhm. euh, mhm. waa ñàkk faale da cee am mooy li ma la wax léegi dafa mel ni faf da leen a gënal. ndax yow su dee danga di responsable ci réew mi ku ñàkkle ku ne bitim réew nga jaale ko ko te say doom saa yoo xëyee ñu lay jox lim nit ñi génn nañu àdduna ci anam yu métti génn nañu àdduna ci géej gi te ba léegi noo cee def communiqué ba léegi mënoo cee jël say devant parce que amaana dalaa gënal waaye nag <coughs> comme ni ma koy faral di waxee métti na loolu waaye ñun loolu ñun ñoo ko mën a dakkal dafa bëri loo xam ne nit ñi dañ koo xaw a umpale mooy tey rëbës dëgg la détenu politique yaa ngi fa mais bëri na ci ñoo xam ne dañ leen a jàpp ngir gaal gi te jamono ji seen lim dem na ba commencé ëpp limu détenu politique waaye ka nga xam ne dafa nekk di organiser immigration clandestine wala mu nekkoon ci yoon di dem kooku yaakaar naa ni soo ko tegee loxo am na beneen daan goo ko war daan daan dul jël ko tëj ko rëbës ci yoon su dee da ngaa bëgg loolu dakk war nga ko laaj lan moo la dugal ci lii ndax munoo woon doxalee nii est-ce que duma la jàppalee ci lii parce que am na programme yoo xam ne nee nañu programme la pour jàppale jeunes yi waaye ña jàng lañ ko jox waaye ña jàngul ci réew mi la ñu bokk ña nga xam ne tey dañoo gàddaay ne dañuy génn réew mi war nga leen a mën a encadrer jàppale leen ba loolu génn seen xel ba képp ku ñu gisati muy waajal dem ñu waxtaan ak yow waaye ñooñu soo leen jëlee yóbbu leen rëbës gën a feesal kaso ga sonal nga nekk kaso waaye sonal nga leen ñoom sonal seeni wayjur looloo tax jeunes yi dañoo dem ba jaaxle dem gi gënal leen toog bi te loolu état bi il est entièrement responsable de loolu ndax su décidé woon loolu dakk dina doon dina doon jaayante ba loolu dakk waaye loolu mun mënuñu cee ñàkk fustiger état bi te gëm naa ni ñoom suñu bëggoon lu ni mel dakk dina doon dakk ndax wax dëgg yàlla ñoom ñoo war a encadrer ñoom ñoo war a jàppale les jeunes ba ñu am envie des ci réew mi am envie liggéeyal réew mi am envie Euh, doxalee népp luy yoon ci réew mi ndax ñun nag comme niñ koy faral di waxee ndaw réew mooy tabax réew waaye ka war a tabax réew bés bu demee bay daw dem bay làqatu tey Papito Kara kama bokkaloon kaso muy Ousmane Diagne ana mu tey kenn mënu la wax fan la nekk ndax dëkk gu métti ndax dëkk gu ñàkk su euh, sécurité tey photo boobu noonu ñuy véhiculer mu bokkoon koog benn talib ana benn talib man li ma fi toogloo tey du sama ngóora du sama ngóora yenn saa yi da ngay toog wet ne man lu tax man samay nit yëpp ñu jàpp leen te man tey ba tey jàppaguñ ma c'est parce que dañoo nekk ci réew moo xam ne deux poids deux mesures moo fay daw mooy képp kuy wax en tout cas ngay wax dëgg sa kër kaso ga lay doon waaye di ko lu bu baax te di soññaat comme ni ma la ko waxee le peuple sénégalais ndawu réew mooy tabar réewam kon nañ fi toog ñàkkante kook ñoom ba ñu am lu ñu gënal ci réew mi